asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki taalibe yi fi teew ak yéene woon a teew ànd ko yéen ñu ngi delloo am nuyoo bu tedd di leen delloo ziare bu ma sëkk dégg nañ li sëriñ Moustapha Diop wax. dégg nañ ko bu baax a baax a baax gis nañ ko bu baax a baax a baax yëg nañ ko itam nag loolu euh, seen taxawaay moo ko waral xam nañ seen yéene bu yàgg xam nañ seen pastéef xam nañ seen yitte yooyu yëpp nag ànd eh, di seen taxawaay mu taxawaay bu rëy taxawaay bu ma sëkk ñu di ci gën a yeesal sunu cant sant gun sun sant sunu borom mi mu booleeg sëriñ bi di gën a yeesal sunu cant ci bi mi nga xam ni wutunoo am dara lu moom tey ëllëg eh, wëlbatiku itam nag di yeesal suñu cent ak yéen cent gu rëy rëy yoo xam ne amul fenn fu mu yem leen gërëm bu baax a baax a baax a baax de jëfin bi rek doy na sëkk màndarga ci taxawaay bu mat eh, fa ngeen jóge kenn ku ne fa mu nekkoon ak na ngeen soree ni ngeen tasaaroo ak foofa ni mu soree fii ngeen wël ngeen wël woon gannaaw lépp bokku jublu bokku yéene bokku fa séef bokku yitte ba agsi fii ci dëkk bu sell bi sëriñ bi tax leen jóg ngeen ñëw ba ci barab bii daje fi ni ngeen fi daje loolu jëru doole dara doy na sëkk doy na màndarga sëkk doy na yitte ju mat doy na taxawaay bu rëy doy na doy ju rafet kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax dëgg la jëf ji ak jëfin defin bi réy na fi nu lool mat na sëkk waaye nag su ngëneel suñu borom moom yëmul fenn te yëmale yëma yëmale wu ca fenn sëriñ bi te tawfeex ju may suñu borom boole noog sëriñ bi nu ànd ak sëriñ bi loolu doy na lépp noo ngi leen gën a def soññ ndax defin mat na defin mat na sëkk réy na lool ñëw gii nii ngeen di ñëw sëñ bi sëriñ bi tax leen a jóg ngeen fekk sunu ngir sëriñ bi nu gasandoo leen garlandoo leen ngir sëriñ bi noo ngi koy gën a gën a def gën a feddali sunu laxasaay fas yéene koo ànd ak yéen sëriñ bi boromam rek mooy yitteem amul benn itte bëggul dara ba mu jógee bañ ko gisee ba bañ ko noppee gis ci boroomam rekk la nekk tëlu fi dara lu boroomam kon bu nu amee tawfeex ju nu am suñu boroom boole nag moom nanu saxoo sant yàlla saxoo itam di ko sant ndax defal nañ loo xam ne mën nu koo fay waaye nag mën nañ koo jéem a sant cant gi nii ngeen defee dara jiitu ko ci ndax woon gannaaw lépp seen yitte di sëriñ bi ngeen wone ko ni ngeen ko wone noonu alhamdulilah rabbil daal na mu xel bu baax ndax ci noonu doomu leen ko jëm ci moom jublu ko jox ko suñu lépp sa sax ca dàkk fas yéene sax dàkk sunu kem kattan ci jaamu yàlla li nga xam ne moonu fenn moo tax ñu bind loolu sëriñ bi féete nañu foo xam ne jaamu yàlla sax bu ñu koy def dañ ko war a def ngir sante ko ko ndax digg ba boromam wëlbatiku itam fas yéene sax dàkk fas yéene koo liggéeyal ni mu doon liggéeyal yonent bi xëy na tuuti nañ de sax néew nañ si doole waaye sañ noo def suñu kéem kàttan diggante jaamu boromam liggéeyal yonent bi ci loolu rek la nekkoon soxla fi leneen kon ni nun suñu yitte jëpp war nañ koo def suñu kem kàttan sax ci jaamu yàlla liggéeyal ko ko sax ci ko ni mu doon liggéeyal yonent bi ak lu ko tële tële nekk ci nekk diggante boobu te sax ca bu baax a baax a baax bind gim nu bind boole na sëriñ Tuubaa boobu la na amoon tawféex tawféex ju joo xam ne yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira yëpp a ngi ci biir muccug tey ak ëllëg mi ngi ci biir defaru tey ak ëllëg mi ngi ci biir loolu la tax suñu borom bind bind doomu aadama waxal boppam ne wala xadd karam naa bani aadama teral doomu aadama teral nga jóge ji ko teral lim yàlla bind yëpp dem doomu aadama la ci gën a la ci gën a teral sëriñ bi rëy na lool ci boromam moom la soog mu cër bu cër bi nga ko cëral bu rafet cër bu mat sëkk def na ci moom la ko te gaa yi yàlla yëpp sikki sàkk nañ gaa yàlla yépp soññ na leen seen diggante seen borom loolu yàlla moo ko defal ci coobareem te loolu dana leer dana gën a leer boroomam defal na ko ay may yoo xam ne waxal na boppam ne fa jëm rek lay feeñee kon nan sant bu baax a baax te góorgóorlu bu baax a baax baax ndax na mu ràññi ko ca tànni fi boromam ya nun suñu jom mooy waruñoo def ni yenn nawle ñu dul yu baax yi jëkkoon ànd ak bi nun suñu bopp ñooñu rek lañ war a def ay nawle kon kon nanu góorgóorlu bu baax sëñ Tuubaa mi ngi sa xol loolu yëmatoo ak kenn duru kan ko bokkal nanu góorgóorlu bu baax te xam ne nun liggéey sëñ Tuubaa ci suñu bopp jëkk yi bari bari bari bu mu boroom Sëñ Tuubaa teeree ñu xam ne ñi lii boroom Sëñ Tuubaa la ñu ràññi ko na Sëñ Tuubaa ràññi ko ci biir mbo ci loolu mooy suñu cër kon nan xam loolu bu baax bu ñu jombale dara suñu bopp nan bëgg sëriñ bi rek te def ko muy suñu lépp jox ko suñu lépp sax dakk ci nekkal ci li li li li mu bëggoon loolu mën nu koo fay waaye ci loolu lañ ko mën a sante nan góorgóorlu bu baax a baax a baax ba nekkal ci ni ni nekkal ci li mu bëggoon ci noonu ñu def ci suñu kepp kàttan te bu ñu ca defee suñu kéem kàttan la jeex lépp daañu lu gàtt daañu lu gàttal kon ñi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax nii ngeen ko defee mooy màndargam ni mu war a seen xel ak seen xol ak seen yiteeg seen jëmu yépp ngeen jox ko Sëriñ Tuubaa nga xam ne ku ci amoon loo ci dolli da ko ca dolli loolu mooy suñu war ci suñu digganteeg moom kon sant rek ak soññu soññu suñu bopp loolu rek mooy suñu war ci fas yéene sax dàkk ci li li mu nekk loolu ndax loolu rek li mu nekkoon rek la bëgg nekk ci ndax loolu li ko fi indi daanduwul xamal jàmm ñi gindi jàmm ñi seen borom woo ma leen jëme ci seen borom waaye nag nun noo am tawfeex ñi nga xam ne suñu borom dogal na nekk di ñooñam loolu amul jenn tawfeex ju réy ju yéesu loo xam ne yées na jël te tawfeex rekk saxaabatu rasul lañuy rëy rëy la ñuy baax baax tawfeex ju rëy lay am tawfeex ju rëy rek moo leen ko may waaye nuyu tawfeex ju rëy rek moo may sëriñ bi man sant yàlla bu baax di góorgóorlu man sant yàlla bu baax di góorgóorlu gi def jéem a defal suñu bopp képp suñu képp kattan ba gën koo mën a jé jëmbal sëriñ Tuubaa am na ndam ba noppi waaye nan jéem nan jéem a góorgóorlu ba ba fa mu ba ëllëg mu nekk ci biir itam loolu mel na ne rëy na jafe na waaye am nañ taw fexe duna la ca des ñu xam ne am nañ taw fexe rek te góorgóorlu ci lu ndox lu nu góorgóorlu rek jéem gën a defaru jéem a gën a joxe suñu bopp jéem a sax tàkk ci farlu sax dàkk ci ragal ragal càggante bañ a xeeb dara lu baax lu mën di ko def bañ a naw dara lu baax lu mën di ko def te sax ca loolu dàkk rek loolu eh, ci gàttal rek texe biir ci loolu la nekk texe biti ci loolu la nekk texeeg tey ci loolu la nekk texeeg ëllëg ci loolu la nekk te bu nu bu nu gën a dëggu di gën a xam loolu di gën a yegg loolu yëg loolu gën ko dund noonu rek la demee ñoo ngi sant bu baax baax ñoo ngi leen bu baax a baax baax taxawaay bi mat ba sëg rafet na lool dara desu ci kon noonu la rek mooy wax ni nanu góorgóorlu bu baax ba lu nu weesu rek nañ ko xeeb ci li nu jëm lu nu weesu rek nañ ko xeeb ci jëm loolu ñun ci gën a dëggu rek di gën a wéy te duñ ko yëg noonu rek la demee loolu yooyu yi wax léegi yëpp ab tëgg rek la waaye ku ko doon faram di ko gën a leeral loolu xajul ci bis bi waaye nu tënk ko noonu xame ko noonu sëriñ bi moom lu nu ko gën a xam lu nu ko gën a xam rek gën a raw luñ ko gën a dund lañ loolu moom kattan la boo xam ne amu ay nañ ko gën a xamee noonu bu baax te góorgóorlu suñu képp kattan jërë ngeen jëf lii lépp ab junj rek la waaye buñ ko doon buñ ci doon wax bët mën naa set te du te du yëngu sax moom la muy jeex waaye nu góorgóorlu bu baax gën a soññu rek eh, jëm ci sëriñ loolu moom rek la ko mën a sant ndax sant rek la cant rek lañ ko amee waaye bàyyee ko suñu lépp te góorgóorlu suñu képp kàttan loolu rek lañ ko lañ ko mën a jiima sante kon nan sax ci sant ko bu baax waaw nan sax ci sant ko bu baax lu nu mën ci jaamu yàlla ñu di ko def suñu kem kattan ak na mu gën a selle lu nu mën ci liggéeyal ko suñu kem kattan nu mu gën a nu mu gën a yaatoo nu mu gën selle nu mu gën a sax nekk ci diggante boobu sax ci dàkk ngëneel la loo xam ne ci ngëneel suñu borom lay jóge te ngëneel suñu borom amul yemaay kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu leen sant bu baax a baax a baax góor góorgóorlu rek damay wax ne ci suñ bopp rek ci ci kaw taalib yi ni ñu liggéeyee Sëñ Tuubaa ci noonu mu nit noonu lañu war a liggéeyee Sëñ Tuubaa ci ñoom loolu rek a fi nekk da ngeen xam ne noo ngi leen di def laxasaay bu dëgër laxasaayoo ko fas yéene am ak yéen rek suñu kem kàttan waaw waaw noo ngi fas yéene ànd ak yéen suñu kem kàttan ak taalibe rekk fi nekk ak taalibe rekk fi nekk sëñ bi amul mbokk ak taalibe rekk lañ mën a jëriñoo ci moom kon na ngeen xam ne eh, da ngeen am tawfeex rek waaye waaye waaye ñëpp ci am kenn ku ne ci nun warut xënte woo dara lu fas doon taalibu Sëñ Tuubaa waaw ndax moo koy jëriñ kon yàlla na suñu borom gën a gindi ci sëriñ bi te boo doon dimbal loolu nu kàttan ban man koo nekkal di ko liggéeyal di wéy gën koo mën jox suñu bopp lépp nu wëlbatiku boole lépp na ma ko koo sante rek ndax mun nu koo fay mun nu koo sant waaye cant gi nag nan nekk nan koo nekkal ci li mu bëgg rek suñu kem kàttan am ca pëstéewu sante ko ko rek jër ngeen jëf jëf ñëpp nu xam liggéey bii di ñëw xam na liggéeyu seen bi la te taalibe yëpp la ci àndal waaye moom moom ci boppam liggéeyam la kon nag ñi ànd ak moom di taalibeem nañ xam ne liggéey bi sunu liggéey la ci kenn ku ne gën a jëblu te loolee foog naa ne tënk ngeen ko ci wax ji waaye nañ xam ne bokkut ak adde yi daj bokkut lee leen lii nañ fexe ba ñi nekk ci biti mbooleem daayira yi mu ne daal xadim nañ góorgóorlu ba nga xam ne weer wu jot danañ dajale lu nga xam ne danañ ko indi ci liggéey bi ba kenn du leen ci man kenn waru leen ci man ndax Moustapha bi wax na ko nee na ñooy ngànnaay sëñ bi ñooy léppam kon nag la ci kenn ku ne gën a taxawee nam ca war a taxawee kenn ku ne na xam ne liggéeyub sëñ bi la te te te ànd koog taalibe yi waaye moom ci boppam moo ciy jiitu ak waa këram kon nag na kenn ku ne xam loolu loolu rek laa leen bëggoon sëñ bi moom soññe bi matal na ko ñëpp waaye nag na ñëpp xam ne liggéey bii liggéeyu boppam la ànd ci taalibe nag liggéeyu sëñ Tuubaa waaye nag ànd ci taalibe kon nag taalibe boppam wax boppam kon nag na kenn ku ne fas yéene cee taxaw la cee def di sëñ bi wax na ko lu ci waay def sama bopp nga def ndax sëñ Tuubaa nga ko defal kon nag na ko ñëpp xam loolu kenn ku ne gën a laxasaayu ànd ak moom ci liggéeyam bii nga xam ne liggéeyu Poroxaan bi la mu bañ laal ci liggéey yi daan def yëpp waaye liggéey bii kenn ku ne jëmaat ca na nga xam ne moom la ñuy moom ci liggéey bu nga xam ne nu ci dugg muy engagement buñ jël dañ xam ne ab taali bi kat sëñ bi wax na ko engagement la bu kenn ku ne jëlal sa bopp jëm ci sëñ Tuubaa kon nag liggéey bi na ci kenn ku ne jaral la te kenn ku ne ku ci liggéey sa bopp ngooy def kon nag ñun ñëpp nan ànd ak sëñ bi ci liggéey bi nan nan nan naka naka nan àndale waxtu wu ne ci moom waaye nag liggéey bi liggéey boppam bu mu jëlal boppam na ci kenn ku ne xam ne sa bopp ngay defal ngir moom kon nag bu ci kenn jiitu waa kër waa këram yi muy noonu lañ ko ñëpp xam fu waay demee na ko yóbbaale bisimilah. ila